abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen man di ko jot ca tàng-tàng ba asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa ta'ala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd yéen ci benn secret bu nga xam ne day dox ci wàllu kaaraange kaaraange mooy protection wala sécurité ku bëgg a am kaaraange gu dëgër a dëgër yàlla sàmm la aar la protéger la sécuriser la ba lu jógewul ci moom du man ci yow dara mbokk yi na bàyyi xel secret bi nga xam ne moom la ñu fas yéene séddoo ak yéen tey incha allahu rabbi mbokk yi secret bi ki ko bëgg a jëfandikoo day njëkk fexe ba ànd ak laab laab ci yaram laab mooy sell bu yoree toj mu ndaw mu jàppi bu yore toj mu mag mu sangu farata fexe ba ay yéreem laab ta sell bërëb bi muy toog laab ta sell mu jublu ci liggéey bi nag ana nu ñuy defee liggéey bi mbokk yi kiy jëfandikoo liggéey bi day ubbee audu billahi min alshaytaani rrajim bismillahi rrahmani rrahim mu daal di jàng ayatul kursi muy allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum ba wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyul azim ayatul kursi yi ba mu mat moom lay jàng ñaata yoon fukki yoon ak benn yoon ak benn onze fois onze fois su noppee mu teg ca qul yaa ayyuhal kaafiruun qul yaa lakum diinukum waliya diin qul ba saar jeex juróom ñaari yoon juróom ñaari yoon wala sept fois su noppee mu teg ca qul huwallahu ahad ahad ba ca walam yakun lahu kufuwan ahad ñaata yoon juróom ñaari yoon juróom ñaari su noppee mu teg ca qul audu bi rabbil qul audu bi rabbil falaq ba ca euh, wa min charri xaasidin ida xasad moom itam juróom ñaari yoon juróom ñaari fois sept fois su noppee mu teg ca qul audu bi rabbin naas ba ca euh, minal jinnati wannaas qul audu bi rabbin naas ba ca minal jinnati wannaas moom itam sept fois muy juróom ñaari yoon sept fois muy juróom ñaari yoon bu ko defee nga tëje faatixa faatixa doo ko ubbee de mais moom ngay tëje moom ngay mujje nga jàng fatiha bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin ba ca wala dallin nga jàng ko ñaata yoon yaay xool ñaari lim yi bu ci neex bu la neexee nga jàng ko juróom-ñaari yoon wala bu la neexee nga jàng ko juróom yoon fatiha bi ngay tëjee ñaari lim yi yaay xool tànn sa bu neex la sept fois wala neuf fois sept fois wala neuf fois yaay choisir bu la neexee nga jàng ko juróom-ñaari yoon wala nga jàng ko juróom yoon lépp benn la mbokk yi lii ma wax de képp ku ko defee nii ma ko waxee incha allahu rabbi yàlla moo lay aaral boppam moo lay sàmmal boppam ba doo soxla policier wala gendarme wala ay solda wala ay garde rapproché doo ci soxla dara yàlla moo lay sàmmal boppam ci zahir ak baatin kenn du la mën a lor kenn du la mën a liggéey kenn du la mën a catu kenn du la mën a làmmiñu kenn du la mën a lor ci bët bu aay incha allahu rabbi waaw kenn ku ne mën nga koy defal sa bopp di ko defal kooku yéene nag say soxna say doom say jarbaat say sët tabaarakallah mbokk yi dañuy ndi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fi la njëriñ yee gën yaatoo jaa ngeen jëf